yeah guys what's good what's good it's your new boy Lord West guys salaamaaleykum salaamaaleykum daal jàmm si ma chaîne YouTube comme ni ma koy faral di waxee chaque fois gars yi tey dañuy ñëw waxtaan dañuy ñëw waxtaan si ban série Pod et Marichou troisième saison premier épisode ah mooy entrée première bi nga xam ne jox nañ ñu ko ñamal nañ ko aperçu bi nga xam ne am nañ ko si moom lañuy ñëw waxtaan léegi-léegi après ok gars yi comme ni ma leen ko waxee woon sànq Pod et Marichou troisième saison premier épisode moom la ñu ñëw décortiquer tey tey damay am benn changement bu ndaw boo xam ne ah moom laay def te bëgg naa ku si nga jël sa temps ah nga seetaan bu baax li xam moom laa leen wax parce que lu intéressant la ngeen seetaan ko ngeen décortiquer ko ensemble ak man ñu gën si mën a wax. on va partir avec la production en premier lieu lan laay wax si production nañ dugg si wala leen xoolee y a beaucoup d'amélioration si son bi ah gisatuñu ki yuuxu ki wàcc ki dóor ki ah lumière boo tëjee bunt mu ne kara quin quin genre yooyu noonu gisatuñu ko gisuñu daal maanaam marché li nga xam ne mooy xew si marché yi benn instant lan la gis mooy amélioration vraiment dóob amélioration kon côté bi mën nañ commencé wax si côté positif yi nga xam ne moom lañ gis amélioration gis nañ ko fa y' a beaucoup de doublage de son parce que même affaire buy mouvementé am na benn genre son boo xam ne moom la nit ñi laaj te moom la ñu jox kon ça veut ne côté son y' a rien à dire ah bien joué pour l' premier épisode lañ nekk di wax vidéo bi doog boo leen rappelé woo en première saison Pod et Marichou naturel na mais jox ñu woon benn genre vidéo bi nga xam ni moom lañ soxla ah ça fait trois ans je crois jamono mooy dox affaire di gën a naar matériel di gën a ñëw muy gënoon doog mais deuxième saison bi amoon nañ benn changement boo xam ne gisoon nañ ko si côté vidéo mooy image yi nga xam moom la ñuy jox mais c' était trop c' était trop exagéré parce que da ngay gis ku xees pecc pecc a xees Eh, loolu boo leen xoolee si transition dañ ko changé dellu si naturel bi te qualité vidéo bi dafa naan allié ak son bi lu nice la loo xam ne ñun moom la ñuy apprécier vraiment. nañu wax si côté ah acting bi maanaam nañu wax si côté recrutement yi xam ne def nañ ko mooy casting bi on a vu que ni ils ont ajouté beaucoup d' acteurs ah, nouveaux mooy maanaam cinq six jëm six ah, wala burkinabé yi nga xam ne fekk nañ fa on a vu que ni dugal nañ ay acteurs sénégalais comme kan ah, Diko wala comme kan euh, Sonia wala comme kan gars nga xam ne je me rappelle pas ki nekkoon defoon Dakar trottoir mooy film bi nga xam ne nañ ko bañoon diffusion tam gis nañ ko mooy nga xam moo tudd Billy si film bi ah gars boobu soo ça se voit que ni acteur la ça se voit que il est bien présent am na kii bi ni ñu ko bi mën na jouer rôle kon sa veut dire que ils se sont pas trompés en jusqu'à présent si premier épisode lañ nekk. si côté acting bi maanaam ni ñuy réciter ah boo demee itam Abidjan ak euh, Ouaga ak euh, foofu noonu mooy maanaam Burkina Faso gis nañ itam acteurs yi ñu jël foofu ce sont des grands acteurs vraiment gis naa fa noté naa fa trois quatre personnes yoo xam ne ay grands acteurs lañ boo xoolee si film euh, Fespaco yi wala sa film Abidjan yi c'est trop de kon ça veut dire yi daal pour l'instant moom vraiment vraiment c'est très très très très nice on a vu aussi t ki nga xam ne moom moo nekk di mu ngi tudd m'excuse ki nga xam ne moo nekk si secte bi genre secrétaire bi am mooy yor wàllum lépp loo xam ne daal bureaucratique secrétaire foofu loolu daal dóob kon ça veut dire que ne côté production mooy maanaam vidéo son ak acting pour l' instant on y dañ demaat si beneen affaire si production mooy lieu bi ah c' est bien choisi Dakar Burkina Abidjan nous tous xam nañ ni Burkina Abidjan font partie xam nga de meilleurs meilleurs côté yi nga xam ne moom la ñuy gën a jouer affaire cinématographique kon ça veut dire que Sénégal bu demee collaborer ak ñoom benn genre audience la ñu benn genre apertura lañ nekk di wut foofu noonu kon ça veut ni intelligence foofu noonu production doo na et ça veut dire que ni tam wàmbara li a dem foofu noonu joxe seen xaalis mën a bi jox nañ ñu ko muy démb liggéey bi daal rafet na en tout cas côté production je vous félicite ah aw ma dara lu may wax léegi nañ dugg carrément si amélioration yi li nga xam moom mooy côté négatif bon bu ñu duggee si côté amélioration tout d' abord peut être ñun ñu si bàyyi détail boobu man moo xam kon ça veut dire li nga xam ne yamb bi lan lay def foofu noonu wala genre côté sigle bi laay commencé li nga xam moom ah, lan moo si am mooy vengeance mooy ah mooy lépp loo xam ne jox nañu ko daal boo xoolee film bi am na si kon ça veut dire que ni sigle bi tam c' est bien choisi c' bien resté et gis nañ si benn amélioration nañ dugg si côté nañ dugg si côté séné ah durée durée maximum une minute ah chronomètre naa quoi am na tuuti li ëpp mais c' est pas un problème moyen bi daal une minute la kon ça que c' bien fait déglu nañ samay conseil e, doo xoolee vidéo bi nii lépp li nga xam ne seetaan nga ko depuis commencement ba fin ah bëriwul dañ lay yóbbu fii cu càpp fii xacaat e, la fii dóor la fii yow ngay xaar la temps ngay xaaraat fële jox la loolu mooy genre benn affaire bu mouvement pas seulement si nit ñi mais aussi si scène yi nga xam ne nit ñi dañuy a fàtte ne noonu naa ko si seen scène yi mooy xeex nañ yi wax nañ ak burkinabé yi làkk nañ fa làkk burkina lépp loo xam ni ah c'est pas parce dem rek jëli Marichou ne moom la ñu bëggoon jox delloo ko mais dañ dem foofu noonu wan li xam lan mooy réalité ñaari dëkk yi mooy Côte d'Ivoire ak Burkina Faso et vraiment vraiment c'est bien pensé te pourtant mënoon nañ bañ a sonn sax dañu joxe loolu mën nañ dem jëli Marichou ñëwaat point ñu continuer seen affaire Dakar mais jëm nañu wane ay affaire bu Thomas Sankara histoire xam nga lépp li africain lépp la daal la genre thème boobu noonu vraiment vraiment c' est très ah, pour mën am lan lan la ñuy gën a continuer ndax dinañ tenir à bout wala non. on va parler aussi toujours scène bi ah si ah, kër kenn nekkul si salon kenn nekkul lii lépp da ngay gis benn genre mouvement bu dóob surtout surtout piscine bi bi moom moo amee benn genre rapport ah ak femme boobu noonu loolu gis naa ni Sénégalais yi defuñu ko lan moo tax ñu def ko dañu bëgg a ni pour les Ivoiriens c' pas benn affaire boobu man bëgguma ngeen toog finalement en ah, suñu réalité dëkk suñu réalité dëkk wax dëkk fa yàlla ni ngeen di wax ay réalité dëkk nekkul Sénégal Sénégal lu pire fa nekk kon booy wax réalité dëgg da ngay joxe li nga xam ne moo fa ne pas lu suñu maam yi bàyyi wala li nga xam ne non lu suñu maam yi bàyyi ñun génn nañ si bu yàgg il faut savoir dire la vérité il faut ngeen nangu loolu noonu pour ñu mën a man je je remercie toujours ah, Mbarodi que ñoom dañu am fit dañu am ah ndànk-ndànk mooy jàpp xolal golo coñ yi noonu lañ nekk def dinañ dem ba Sénégal vraiment vraiment lépp li nga xam ne ba nañ ko loo xam ne mooy tere dem suñu cinéma dinañ ko fa dugal parce que loolu bokkul ak acting bokkul ak vie réelle c'est pas parce que diw def na nii mooy par exemple sama doom par da koy def gis nañ nit ñu baax nit ñu bon loolu yàlla moo ko teg si monde bi te du film mooy tax ma changé wala film moo tax man may nekk nit dina influencer tuuti personnes yi mais peut-être dina influencer nit ñi tamit si ah fi mu mënoon jox lépp influence yu baax ak influence faa joxe lu bon faa mu joxe la baax kon ça veut dire que action yi noonu dinañ ko gën a continuer parce que boo xoolee Sénégal lan la. diw jàpp na diw même trahison par exemple yow boo ñëwee nga nekk ak benn jabar ngay dem di doxaan fële ngay uti beneen ngel lan nga gis ñu wane mu yóbbu la restaurant jox la xaalis jox la ah, mais loolu affaire de prostituée la c'est pas mbaraan wala genre yooyu noonu jox la nga naan c'est la même chose am nañu wax dëgg il faut ñuy joxe fait réel yi nga xam ni moom ma si même bu bàyyi gars yi gars yi def seen kii parce que art bi il faut nit ñi libre art bu libre la lu ma a waxee tamit mooy maanaam bi nga xam ne ñëw nañ ah, ñu wonee policier arrêté ko xam nga vérifier maa bi lan moo am parce que nekk di wax kon fallait que ñu jox ñu loolu noonu ah fallait ñu jox ñu lu leer leer leer beneen affaire boo xam ne à ne pas à ne pas s'estimer pour rien au monde mooy prostituée bi jàppoon pot nankaan doom ñëw la xàmmee naa la nañ dem on va faire l'amour genre yooyu je sais pas si prostituée la wala nit ku dof la wala genre yooyu mais on peut s'y attendre xam nga doublure mooy double jeu pot double acting bu pot mooy maanaam dafa am ñaari pot si biir film bi ay cheikh lañ comme doom ni ñuy koy ay cheikh mais bii ñaari góor la pot bi mu si secte bi beneen pot bi mu ngi on peut s'y attendre te bu nekkee loolu que day nekk benn genre en double face comme ko xar naa ko si Marichou doxul ah parce que femme bi ñëw rek ne la ay waaye yaa yaa ma nopp maa on va faire l'amour genre yooyu noonu nag kusi parce que da ngay jógee fële dëkk foofu noonu même bu fekkee prostituée kon ça veut dire que am na luy ñuul si soow mi mais peut-être loolu naa sama imagination mooy loolu xam man moom damay imaginer ay imagination yu yu mooy loolu xëy na peut-être loolu mais tam li ma wax xam ne mën na nekk si film bi te bu fekkee tamit mën nañ ko si insérer conseil la boo ko naa lañ ko joxa ah. bref ok gars yi ba ma paree si critique amélioration yi ah nañ dugg si critique négatif yi ah critique négatif yi bëriwul soxorul c'est pas méchant benn affaire rek moo ma xaw a dérangé boo leen fàttali ko si affaire récupération toujours doom doom la ñuy récupéré quoi parce que doom moo nekk affaire septique moom la ñu soxla mais seulement que ni day yomb trop kii ñëw na si arène nationale je vous rappelez saison 2 bi ñëw na moomoo yuuxu na dem na jël xale bi sans pour autant vérifier ndax xale bi góor la xale bi jigéen la ndax xale bi naturel na wala xale bi allié na wala xale bi dafa jël xale bi rek ah yóbbu nice noonu paa bi perte noonu dem di lijjanti beneen doom si Marichou parce que xamul loolu ok bref ñu nangul leen ko ñu ñëw troisième saison la même chose nga def sa gaañ dugg jóge Sénégal dem Burkina yow nii ka yenn carte sans pour autant armé wu nañu wax dëgg nag munoo nekkee di xeex contre secte te amul arme

mun nekk nga ne da ngay dem lijjanti contre secte ñi nga xam ne ay danger lañ dañu méchant dañu soxor si yaa ngi comprendre fallait ñu woon ñu loolu beneen affaire tam am na secte bi dafa ñëw rek jékki-jékki sulleeku nii dugg si deuxième saison bi ñun ñu nangu ko non il faut ñu jox ñu bi secte la jugee biographie bi secte bi lan moo tax mu am kan moo ko créé fan lañ ko créé lu tax ñu créé ko man lan lañ siy jublu loolu il faut ñun ñu xam ko mais deux saisons ngi nii ñu ngi daw même deux deuxième saison la ñu waroon xam mën a dem mais comme ko joxaleen ko ñu foofu il faut ngeen commencer détailler vraiment vraiment secte secte du noonu de il faut ngeen jox ñu li nga xam ni moom la ñu soxla source bi secte bi lan la te gars bii nii nga xam ne moom moo nekk kàpp bi mooy le baron comment euh, comme il l'appelle ah baron boobu noonu moom il faut ñu wane tam benn histoire la moo tax mu nekk baron lan la def pour mën a nekk ba non peut-être Seydou Diop la rey ok on est d'accord nan la ko reyee kan wala moom balaa muy màgg fa mu nekk école la moo tax ñu choisir ko nan la def moom bañ ko choisir comme nañuy choisir doomu pot yi ndaw yi nii il faut ñu tam ñu jox ñu ay bagages yu man je crois que ni des na quoi des na loolu léegi moo nekk c'est pas méchant nag parce que xëy na production wala xel ciné scénario Sénégal moo yeggul foofu mais dinañ ci jëm dinañ ci jëm ndànk-ndànk ah gars yi loolu laa amoon pour wax leen ah li nga xam moom laa si mën a yokk mooy je vous dis la vérité pour les Marichou si trois ah série yi nga xam ne mooy sama top 3 yi nga xam ne koy léwatoo di ko jaawal ñoom laa woowee Eumeu Sène Modou Lo Balla Gaye ah ñoom laa woowee ne nañ koy jaalante rek di ko jalante di ko jalante pour l'instant wax dëgg fa yàlla pour pour les Marichou en première position Mbettel deuxième position Idole troisième position ah mooy sama choix yéen ku nekk am ngeen seen choix peut-être di ngeen ne non yow nga ndaw xamoo film Idole non non maa leen gën a xam film bu baax mais en ce moment Idole amul genre amul dara loo xam ne yokkoon nañ ko si gisuma si leen loo xam ni c'est nouveau gisuma daal toujours la même chose la même dynamique la ñuy doxee kon naa gis naa yeneen changement si yeneen film yi comme ba tey premier épisode vraiment sur premier épisode te gis naa histoire yaa ngi daw kon ça veut dire ñoom ñoo ëpp contenu idole peut-être idole benn affaire ñii dañuy ay faits yu bëri xam ne moom la ñu jox te day gën a nekk loo xam ne day day nekk benn genre ouverture bu rëy loolu amoon pour wax leen vidéo bi jeex na gars yi n'oubliez pas de commenter sa beneen affaire boo xam ne bu leen ko fàtte liker pouce bleu te bu leen fàtte tamit abonné wu parce que 10 000 yi léegi mu jot ñu yegg fa comme ça moom mën leen communiquer li nga xam ne moom lay joxe chaque fois ñuy interagir di waxtaan entre nous gars yi Lord West la woon ak yéen pa pa pa pa e a pochi pochi pochi partiti la band di tutti pochi ok Sta merda già digerita perché non senti ruti Lo so, l'invidia rende ciechi ma ti dirò occhio dove tocchi